mbokk téléspectateurs yi àndoon ak ñun ci Lou'Bess TV mbokk yi ñu ngi leen di siyaar di leen bëggee mbokk yi mbégte mi la ñu nekk tey ñu ngi dëkk bu sell bi di Touba Mbacké ku wax Touba wax li nga xam ne moo di màggal Serigne Touba gi alors mbokk yi tey ñu ngi fi nga xam ne moo di Jannatul Mahwa ku wax Jannatul nag wax Serigne Béthio Thioune Cheikh Béthio mi nga xam ne yoonu murid bi bay na fi waaram ba tey suñu borom jëlee ko fi waaye tamit cantaako ni tey foo leen tudd ci réew mi ñëpp bàyyi leen xel ñuy siyaare bu baax a baax sëriñ Saliou Thioune mi nga xam ne mooy njiitu cantakoon yi mbokk yi ñu ngi fi nga xam ne moo di waañu cantakoon yi fii ci janatul dañuy duggandoog mbokk te yi ci biir xool li nga xam ne moo fi am àndandoog mbokk taalibe yi bu ko defee ñu dund ak yéen màggal gi ak yéen ñu dem xooli sama gaay benn par ben ñu dem ba tey mbokk ñu ngi ci waañ bi fii ci janatul waa ñu ngi fekk suñ mbokk cantakoon yi jëru ñu ngi lay siyaar waaw ñu la dale siyaar wér yaa ngi am jàmm waaw ñu ngi am jàmm bu baax da am taw nga màggal gi waaw sant yàlla rek sant yàlla bu baax ñu ngi koy remercier ye di siyaare xalifa bi sëñ Mountakha yal na fi yàgg te wér ñu ngi siyaare tamit sëñ xalifa Cheikh Salif sant yàlla gannaaw bañ fekkee ren fekke nañ ko daaw yàlla dem dimbali ñu fekkee ko ren yaa nañ ko fekke ay ati at lii nag sant yàlla rek la dundal lan boo gisee ñuy togg lii yëpp pour dundal jaami kese jaam yi ñi nga bàyyee ko bërëb bu nekk di ñëw di màggal di siyaare pour lan wut fi njëriñ yàlla suñ borom yàlla na saafara lool ñu ngi siyaare suñ bokk taalibe yëpp di siyaare mboolem ko xam ne jawru waañ nga rek ñu lay siyaare bu baax a baax a baax di leen ndokkal di leen ñaanal yàlla bu baax màggal gi dañoo ñëw pour fas yéene bari neen gan yi jox leen ñu lekk naan ba mandi dem siyaare ji ñaani seen soxla yàlla fajal leen ko mooy suñu yitte ak suñ ndigal si ndigal nag si la ñu dox suñ jëwriñ suñu lépp suñu mag suñu sëriñ suñu taalibe muy xaadim mbooj moo xam mooy borom waañ fan nga jóge ñëw fii maa ngi bàyyi ko Saloum waaw maa ngi bàyyi ko fu Saloum si région bu Kaolack département Nioro arrondissement Paoskoto commune ba Gént Kay foofu laa bàyyi ko maa ngi siyaare ñëpp di siyaare waa Saloum yëpp ñun ñëpp ay taalibe seex mais nag Cheikh Ahmadou Bamba biram dafa foor xaajalut nag dafa woon sama mbir ku bëgg jëriñu pour liggéey jëriñu màggal andi na ñëw leen bu ngeen ñëwee soobi yàlla loo def rek boo ñaanee suñ borom dana ko fajal kon jërëjëf si Ahmadou Bamba jërëjëf si Ahmadou Bamba. jërëjëf maa ngi lay siyaar. ñu ngi dellu siyaar bu wér da def ak coono. yaa ngi am jàmm. sant alhamdulilah bu baax. alhamdulilah nga màggal gi. waaw ñu ginnaaw bi ñu santee yàlla. waaw ñu ngi dellu di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba di ñaan Cheikh mu Cheikh euh, sëñ euh, Mountakha Mbacké suñu borom bàyyi ko fi ay année année année waaw di wax ne màggalu màggal gi dafa doon loo xam si ni kéemaan la daal ndax tey euh, sëñ Bamba waxoon na ko nee moom ay mbiram tànki kanam rek la am ba tax na fii chaque année fii lañuy ñëw ci waañ bi di sukkandiku ci wax ji Cheikh Ibrahima Fall doon wax daani dabe ndab ndaxte pour nga dab góor yàlla ya nga xam si nii ñoom ñoo fi jotoon a jaar ñooñu nga xam ne liggéey bu métti lañ daan def ci ndab yi rek nga ko mën a jaar maanaam di jox nit ñi ñuy lekk di ñuy naan ñun nag ci xidma yooyu noonu rek ci la dox kii nii sama mbokk taalibe la chaque année dañ fiy daje moom mi ngi jógee ba Saalum man maa ngi jógee ba Louga fii lañ xamante tey bu ñu ñëwee bay toog di waxtaan nii di ñëw di sympathiser ak yooyu noonu yëpp loolu moom moo tax waaw di wax ni it gi ku ne ak lii indi di gis ñoo xam si nii ñoom dañuy ñëw pour jàpp ci liggéey bi ci waañ beeg yooyu am na ñoo xam ne xasida yi leen indi am na ñoo xam ni berndewu moo leen ñoo xam ni leneen ak leneen moo leen fi indi mbiri moo demee noonu daal waaw ba tax na kenn ku ci nekk la nga nekk rek jëm caa bay sa waar te kenn ku ne bañ a nax sa morom waaw ndaxte kenn ku ci nekk sa borom sa bopp rek ngay liggéeyal waaw sëñ bi de lii nii opportunité la bu mu ñu may boo xam si ni pour jaamu yàlla yi mën fee daje kenn ku ne xool noo jaamoo yàlla mën a yokk sa yool ba ca yàlla waaw loolu daal lañ amoon ci luñ ciy wax di wax ne kontaan nañ bu baax ci yéen ndax li ngeen def nii ñëw couvrir événement beeg yooyu noonu lépp lu ama ama am solo la dina tax yeneen nit ñi dinañ ko gis te bu déwénee incha allah dina tax ñoom ñu mën a ñëw fii nii ñoom ne dañuy ñëw jàpp ci liggéey bi ba tax na ñi nga xam ne ñoom ci bernewu rek lañ nekkoon dañ xam ne liggéey bi ah weesu na foofu noonu waaw mbir yi ñu ngi dellu di santuwaat santaat sëñ bi bu baax di waxaat sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér gu yaram jërëjëf waay ñu ngi war tey fi nga xam ne moo di waañ bu mag bi nga xam ne moo nekk fii ci Jannatul Mahwa ñu ngi toog ak benn jawrin sëñ bi ñu ngi lay siyaar ñu ngi lay siyaar bu baax jawrin baa yaa ngi am jàmm waaw ñoo ngi sant sëñ Touba rek de d'abord fan nga jóge maa ngi jóge ba Thiès si Talamine Thiès waaw alors ngeen ñëw tey ci waañ bi fii nii fas yéene bendeel gan gi naka ngeen dundee màggal gi waaw màggal gi moom chaque année rek day gën a taw feexee ndax loolu moom sëñ bi moo ko def chaque année saa su ne rek day dañuy gën a am yokkute lu ñu def ren rek bu déwénee day mel ni dañ koy triplé loolu nag Sëriñ Tuubaa la waaw ñu ko koy sant nag di ko ko di ko ko gërëmee te xam ne lépp moom la waaw vraiment sant daal sant daal waaw di sant Cheikh bi di ko ñaanal yàlla fa mu tëdd suuf si oyof lool ci kawam ci barki to Tuubaa ndax lii lépp moom la lii ku ko gis xam ni boo wëree Tuubaa ba mu daj néew na nga foo koy gis ci bërëbu Cheikh bi loolu ëpp loo koy gis parce que lu mu liggéeyal Serigne Saliou la moom moo waral lii mu fayee ko lii nag waaw te lii lépp ba léegi ñun dañuy tàmbali rek commencé guñu sax mu mel ni sax yokkute daf ci am ndax li li mooy wàññi ni moom bëri na lool dëgg la dëgg la loolu moo tax ma ne maanaam ba léegi ñun commencé guñu dañuy tàmbali maanaam mbiru Serigne Saliou dañ ciy tàmbali rek am na commencement nag waaye amul ab amul fu mu yem te duñ ci tàyyi nag saa su ne dañ ciy dund rek ba keroog ñu ñuy sàngoo suuf rek ñuy doo ko bàyyi mais saa ne ñoo ngi ci di liggéeyal Serigne Saliou di liggéeyal Serigne Touba waaw maanaam jërëjëf jërëjëf Cheikh bi ba tey ñu ngi ci waañ bi ñu ngi ci soxna yi soxna si ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi ziar bu wér a wér fan nga jóge yow man maa ngi jóge Caaroy Dakar waaw Caaroy nga ñëw tey ci nekk ci waañ bi di bendal gan yi nga ñëw rek ci waañ pour dalal gan yi rek benneel gan yi gars yi xam ne màggal sëñ Bàmba gi daal mi ngi nii te suñu waañ gi waañ baa ngi nii daaw gis nga ko ren gis nga ko moo lay wan ne kon loolu sëñ Bàmba ne du neen neen la parce que ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi koy yëg daal suñu biir xol ba ñun bu ñuy wax sax duñ xam sax lu ñuy wax ndax yëgeel góob li daal yëfi suñ Tuubaa lu dul sant ngërëm rek cant gi daal neex na ñu ngi cant moom bu weer daaw suñu waañ matul woon lii ren gis nga ko ñu ngi nii di saaf fii pombiteer yi soos yi tufe yi ndawal gaa ngi ñëw ñu ngi commencé saaf di benneel gan yi danal gan yi bëgguñu fi benn gan bu xiif na sëñ Bamba dane bésam bii soxlawu ci képp ku xiif soxlawu ci képp ku tuum ranke ñuy ñaan yàlla nag li ñu mébét yàlla mottali ñu ko suñu jëwri nag moom dañuy sant di kontaante ci moom ndax lii dafa jafe cant gi dafa jafe kon ni ñuy cantee daal ab cant daal rek la. jërëjëf mm. Mm. waaw maa ngi kontaan bu baax ci yéen tamit macha allah. mbokk yi mu ngi noonu janatul maxwa la ñu nekkoon ci waañ bi nga xam ne moo di waañu Cheikh Béthio bi àndoon ak taalibe yi gis ngeen mbokk yi li fi am yéeme na lool ay mbana yu bëree bëree bëri la ñu fas yéene bendal doomu aadama yi comme ni ma leen waxee saa su ne yoonu Serigne Touba amu li nga xam ne moo di tànk ginnaaw tànk kanam rek la am te saa su koy faral di wax yoonu murit mbégteeg màggal gi benn la ci li nga xam ne moo di àdduna bi mu di li nga xam ne moo di yoonu murit mbokki di leen jaajëfal bu baax a baax ba subaak jàmm ci suuru màggal bi ñu ànd ak yéen ci yeneen programme Lou'Bess TV jaa ngeen jëf waañ yaa ngi nii